ngi di ziar ñaari question rek lañu am benn bi mooy lan mooy différence entre iblis ak seytaan benn bi aussi mooy lan mooy différence entre lekk ak héritage ay baat yu jege la tax am yu ñu yu ñu bëggoon ci ay leeral incha allah. iblis ak seytaane ah yomb naa xàmme iblis mbindeef la seytaane mooy képp koy yàq mooy suul li mooy suul li lépp luy yàq seytaane la wala boo xeet la ci seytaane ndax mbindeef dana yàq système dana yàq xalaat dana yàq tànk boo teg foo foo ko warta teg sax dana yàq nii la toll ah, legs ak héritage nag moom it yomb naa dégg legs mooy lu ñu la sarax xëy na liggéeyoo ko xëy na matoo ko waaye sarax nañ la ko héritage nag héritage mooy ndono gu taan ndax gis nga loo doon loo ne doon nga ko te tànnu la lool noo ko de daa tege say loxo rek nono day tànn borom nono nag ak lu ñu la sarax bokkul lu jara xàmmee la dama dama ko dégg ci benn morceau bu mu doon déglu <laughs> muy wax ju am solo xam nga kiy wéy ci bëgg a wane ni noblesse ak aristocratie bokkul muy woy di woy bay wax ak ka muy ka muy waxal ne ko man soxlaw ma taxaw ni may buur soxlaw ma taxaw ni may doomu buur ndax ña ma war a yilif ñoo xam ni ma taxaw seen kanam kon nag bu mu ko tuddee rek tooñ leen mu ne ko waaye yow li nga war a leeral nit ñi mooy kan moo dee kan moo dee ba sarax la sa sagar yi nga sol kan mo dee ba sarax la sa sagar yi nga sol te muy li ñuy wax léegi kiy xëccoo daa fekk moomul kii xëccoo dafa moomul li nga moom deme mënu ko xëccoog yow nii la bi toll ngir la ba na jërëjëf. ku wax ne seytaane momu dana jaar ci ñetti dana jaar ci buntu càggante dana jaar ci buntu bànneex dana jaar ci buntu mer may laaj ndax am na yeneen ak buntu yooyu nees koy tëje ban mécanisme mooy mooy mooy verrouiller buntu yooyu wala dañ ko war a verrouiller wala nan lañ war a def ba en tout cas buntu yooyu wala dañoo war a négocier ak moom ba du jaar ci buntu yooyu <laughs> ci ban façon <laughs> man de ku ma laajoon demee naan waa dafa juum ndax tudd na ñetti baat waaye benn bunt la ndax muy bànneex di mer xeetu càggante la xeetu càggante la ndax bànneex lan nga doon sàggane ba àdduna moomee la ba àgg foofu àdduna moom la ba nga àgg foofu te mooy li góor gi doon jàngale nangul sa bopp ci nit ñi mer gi càggante la loo doon yëg sa ba nit war la def lu nga war euh, sentir ni sax nga fa pourtant ñaar yëpp warul jullit te kon ñaar yëpp ay xeetu càggante la ñaar xeetu càggante la mais nag ah xam nga ñoo ngi wax waxu verrouillé mais jullit balaa mat jullit bunt yi lay condamné bu paree raax béton ci kawam. <laughs> ndax càggate gi dëgg la sax nit du mat waaye war na am jomo lu mu matadi matadi fexe ba bis bu nekk mu wàññee ci matadi gi foofu rek la tool du wax ne nag bul xëyit bul yëgati bànneex wala sañotoo mer waaye fexeel ba bànneex gi du la moom

di alalu yàlla leneen war a jóge fële fooye la noonu mais kon la nga seetaan ci sa bopp ëpp na ah mooy li ñuy doon waxtaane ci étape yi yi jàll rek ñiy xëy daanu leer nee nañ dañuy daanu leer ah te ku ci ponkal tiim nga wér boobu pes bi nga xalaat ah koo xam ne ba dara xewagul ragaloo yàlla ragaloo yàlla def sa comédie def say comédie ndax rek lu kenn xamul ponkal tim la mu wóor la ni di loxo la yore bu la bu la mbajee normal ah yalla upu ponkal le botak taxawee ci kanam mu ne la nangam bi nga nga naan ay c'est que cest ah lu dox de moo tax ku kudul bàyyi xel ni bàmmeel am na loo neex defal loo neex defal waaye waxuma la yàlla yàlla taxaw sa kanam waaye ñaari malaaka rek buñ la tiile nga ne la ee eh, loo wax ah di nga seet li ngay wax de noonu rek la toll noonu rek la toll